bëree mbëree ku mën sa moroom daan kaay ñu bëree laay laay xam nga ah boo leen boo leen déggee boo leen déggee loolu nag xam ne rek nag kooku moom mooy moom mooy Fatim Dabakh euh, di jigéen ju mën góor ah, nee naa leen maa ngi leen di woo ci suñu TV euh, muy muy site bu bees boobu noonu nga xam ni kaar macha allah gaa ñi dañ koo teel a bëgg gaa ñi dañ cee teel a abonné kaar macha allah euh, may wax nag ni Fatim Dabakh moom lépp rek làmb la lépp. lépp lépp làmb la bu soobee yàlla euh, euh, CNG euh, mu ngi ci biir képp koo xam ne nii bëgg nga xam dara ci CNG toppal ma Fatim Dabar ci suñu TV waaye képp koo xam ne nii bëgg nga xam dara tamit ci les promoteurs dama lay wax rek dina toppal ma da baax ci suñu ci suñu TV waaye képp koo xam ne nii bëgg nga xam amateurs yi lan lañu lan lan moo leen neex ci làmb ak lu leen naqari ci làmb dama bëgg nga toppal ma Fatim Dabaax ci suñu ci suñu TV ndax da baax moom mooy jigéen ju jigéen ju mën góor làmb dafa yaatu làmb dafa jaboot bu soobee yàlla nee naa leen les CNG les promoteurs ah te tëggkat yi woykat yi ba ci kaña sax bu soobee yàlla dinaa leen ko indil fii ci suñu TV ndax man lu leen bëgga rek moom laay ci laay ci laay dox suba gu ma yeewoo ci loolu ci ci loolu moom laay dox ah kon maa ngi leen di woo ngeen gën a abone car macha allah fi ñu toll nii nag moom damay wax sax gaañu moom gaañu moom site bi ñu toll nii dañ cee profité profité bu baax a baax a baax a baax a baax ma ci am nag mbég mbégte di leen sant di leen gërëm mais ñi jotul woon abonné tamit nañu abonné dama lay wax Fatim Dabakh ak suñu TV lépp làmb la lu la réer ci làmb bu soobee yàlla man Fatim Dabakh dinaa la ko jox. dinaa la ko dinaa la ko dinaa la ko leer la waaye nag képp koo xam ne nii bëgg nga ñu seetaan rek mën nga ñu ci mën nga ma par samedi waaw par par samedi bu soobee yàlla rek boo duggee ci site bi di suñu TV euh, lépp luy làmb bu soobee yàlla man Fatim da baax dinaa leen ko jox.